Sambay maa la wóolu wóolu naa la sama waa ji la wóolu waaw wóolu naa la Tafa Mbay asalaamaaleykum salaamaaleykum mbokk mi xarit am di jàmm ak lu réseaux sociaux àdduna wërngal këpp góor ak jigéen mag ak gune ku ne tafaa fekk na la fa nga nekk ni la jàbb ay juróomam di la laaj say juróom muy fukk di leen bëggee di leen kontaanee lu baree bari di leen wax ni encore ak yéen ak tafaa comme ni daan demee ci sawru ramadan mubaraka sayim tey ñu ngi fii biir université ah Cheikh Anta Diop de Dakar pare pour dugg ci biir xoolu étudiants yi est ce que ñoom ndax mën war a boole nañ ci diine waa ndax étude ak diine la ou pas donc ñun ak yéen ak Tafa bàyyeeguma te pareeguma pour bàyyi Bégayeuse topp ma ñu dugg ci biir étudiants yi wax ak ñoom. la Bégayeuse comme ni la ko Tafa waxee woon ñu ñëw fii fekk fi benn étudiant mu toog ah kilifa gi ñu ngi ziar. oui delloo ziar. mbaa yaa ngi am jàmm ba. nice school. ñu ngi ci sawru Ramadan Mubarak sayim de. waaw. mbaa yaa ngi woor. maa ngi woor kay. boo wooree mbaa di nga julli. maa ngi julli waaw. waaw dañu bëggoon a xam tey maanaam koor lan moo lan moo waral koor weeru koor lan moo ko waral <laughs> wala xaw na doy waar rek. weeru koor xamoo lu ko waral te yaa ngi woor lu waral koor. ah mooy loolu man moom weer wi ñëw ñu ne suba nañu woor rek laa am ak mooy loolu yaa bëgg la xam. ah yaa ngi woor daal. boo wooree yaa ngi julli. maa ngi julli waaw. boo julli moment bi ngay waaj a sëlmal naan nii sa baaraam dama lay dégg nga am looy wax looy wax noonu. man moom auzu billahi mina seytaani rajim laay wax bismillahi rahmaani rahim. ah. <laughs> ba mu man ñetti yoon quoi. aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ok baax na ba tey bàyyeeguñu jërëjëf ku baax <laughs> benn ci sunnay koor sunna koor ko de ah, <laughs> ba ngoon jot ah ne allah akbar dog jot na nga tee sa tàndarma am na looy wax doogay lekk tàndarma bi looy wax yow allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika allahumma <laughs> ay foofu laa yem. mantane. mantane. ñu ngi ci sawru Ramadan Mubaaraka sayim de. waaw waaw. waaw mais mbaa yéen a ngi koy matale étudiants yi fii nii nu ngeen di wooree mbaa yéen ngi woor. waaw woor bi fii ah ça dépend rek. mais yow yaa ngi woor. man non non dama woor nag. yaa Cheikhul Ibrahima Baba Lamine Diassé. lu tax doo woor. dama feebar quoi moo tax. <laughs> la moo la dal. parfois biir buy métti laa amee ak leneen ak leneen leneen ak leneen. waaw waaw. mantane. mantane. mais lan mooy faratay koor. faratay koor bëri na de. benn ci faratay. ren li moo ne kom yi. comme étudiants ñu ngi koy teg ci yoon lu waral koor. ah koor de yàlla ko wàccee de ñun moom xamuñ ci dara yàlla ko wàccee ñi def. lu yàlla digle la. kan moo santaane koor nga ni. yàlla moo ko santaane. fan la ko santaane. si ay téeréem. ci ban téere la ci. laaj ko booy bi. Eh! kaay oh, oh, oh. noo booy bi na ko. ku santaane koor ki nee na yàlla. ki nee na yàlla. Ah. yow loo wax ku santaane koor yow. suñu borom. <laughs> fan la ko santaane. ke nee na alxuraan. kee nee na alxuraan ah, ci livre livre ah? ci livre bi. yàlla moo santaane koor ci livre bi. waaw eh, aujourd'hui <laughs> ko moo ko wax dégg nga en tant que yàlla moo santaane koor ci livre bi. <laughs> kilifa gi ñu ngi ziar. de la ziar alhamdulilah. sant yàlla bu baax. tur bi naka la. son excellence. ah. son. excellence. lu la jàmm la. da ngay tuux excellence. oui. oh. son leader. dëgg du romb nopp. ah ok loolooy son excellence. ok <laughs> d' accord ñu ngi ci sawru Ramadan Mubaraka Sayim de. Mhm, moment bi ngay julli ci biir koor. gis naa de dem bay waaj a sëlmal naan nii sa baaraam bi mais yaa ngi wax te xaw ma li ngay wax lu mu doon looy wax foofu. xanaa xanaa euh, atahiyatillah zakiyatillah atayyiba salawatullah assalamu alaykum ayyuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh waaw loolu ngay wax rek fala yam non non yamul foofu kay na yegg non non <laughs> non ah. non nañ yam foofu rek yeggale ko <laughs> non non <laughs> kan moo santaane koor ah suñu borom bi xanaa fan la ko santaane sa aras aras aras fan la ko santaane ah man pour man ci aras la ko santaane quoi. mantane. mantane. xam nga man sama jàng soriwul mais pour yow ci aras la. waaw loolu leer na mais maanaam tey boo ñu yow boo wooree yaa ngi julli. waaw moment bi ngay julli am na benn es boo xamante ni yaa ngi toog ci si sijaada bi di waajal sëlmal naan nii sa baaraam moment boobu noonu li ngay wax laa bëgg nga jàngalal ma ko ñi nga xam ne ñooy seetaan te xamuñ ko. comme si maanaam boo toogee di taaya. waaw taaya. Euh, comme si man je atayaatu lillaahi as. yaa Cheikhul Ibrahima Baba Lamine Diassé. non laisse tomber. <laughs> daam ñoo xam ne dañuy seetaan Tapha Faramareen te du ñu xam maanaam sartu julli booy julli am na moment boo xam ne yaa ngi toog ci sijaada bi di waaj a sëlmal naan ni sa baaraam loolu moo tudd nan ci julli. ah loolu mooy taaya. waa jàngalal ma sama gars yi taaya bu ko defee ñu mën cee jàngale. comme ma jàngaleen comme ataayaatu lillaahi. sakiyaatu lillaahi taybaatu salawaatu lillaahi assalamu alayka ayo annabi wa rahmatullahi taala wa barakatuh assalamu alayna ala ibadillahi salihina ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah waaw jeex na tàkk lool lool riis na benn ci faratay koor julli li wax mooy dëgg acca kon mi ngi noonu gars yi baax yi loolu leen Tapha Farmada indi loon ah ci sawru ramadan mubaraka sayim bi ñëw fi nga xamante ne mooy université de Dakar ah Cheikh Anta moom la war du moom la bégayeuse ñëw andi suñuy question di ci koor gi lépp lu ngeen fi dégg loo xamante ni jub na ah sunu borom la lépp lu ngeen fi dégg lu dëng dëng dig Tapha la man mii maa di leen kontaane lu bëree bari di béggee toute l' équipe de Farmen Prod samay soppe les Tafarien les Tafarien bàyyi ma kenn la bégaayeuse yow mi ci ginnaaw caméra bi one love